jàmm ju wér ak moom ba faw am na nu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci émission bi weesu gisoon nanu ni kilifay diine yawut yi tuumaale woon yeesu di ko wut a rey ndax li mu wax ne yàlla baayam la ba teg boppam benn ak yàlla mbooloo mu bari toppoon na borom bi yéesu fépp fu mu dem ci biir mbooloo moomu amoon nañu gëm wax yeesu waaye am nañu ko gëmuloon itam yeesu tànnoon na fukki ndaw ak ñaar ci biir ñi ko gëm ngir ñu ànd moom te mu yónni leen ñu waare ji xebaar bu baax bi ci mbirum musalkat bi yàlla wàcce asamaan fukki ndaw ak ñaar ya yeesu tànnoon nag ñoo ngi tuddoon simon mi ñuy wax pierre ak andré mi bokk ak moom ndey ak baay doomu sebede ak yowaana rakkam ñoom ñeent ay nappkat lañu woon ñi ci des ci ndaw yi ñooy filip ak bartelemi toma ak màcc juutikat ba woon sak doomu alfe ak tadde simon mi bokk ci mbooloo ma ñu tudde ñi farlu ci moom seenum réew ak yuda iskario mi nara woor yeesu ñoo di fukki taalibe ak ñaar yi yéesu daan àndal amoon na it ay jigéen yu daan topp yeesu fépp fu mu jëm ñooñoo di maryaama magdala mi yeesu tàggale woon ak juróom ñaari rab saan jabaro ku ñuy wax kusa mi doon wattu alalu buur bi erod ak susaan ak ñeneen jigéen jigéen ñooñu ñoo doon joxe seen alal ngir dimbali yeesu ak ay taalibeem ni nu ko gise woon ba noppi mbooloo ma waaru woon na lool ci njàngaley boroom bi yeesu ndaxte jàngal na leen ak sañ-sañ bu seeni xutbakat amul sañ-sañu yéesu ak dooleem yemul woon ci wax rek waaye dafa doon feeñ it ci ay jëfam yu ànd ak doole ndaxte mbind mi nee na nguuru yàlla du waxi kese waaye doole la léegi nag nanu jëm kanam ci nettalib almasi bi yéesu ba gis ni ko yàlla aji sax ji joxe doole ak sañ-sañ ci bépp mbindeef ak ci jëpp doole ji am ci kaw suuf nu ngi tàmbalee njàng mi tey ci linjilu màrk saar ñeent mbind mi nee na bés booba nag ci ngoon yéesu ne taalibe yi nanu jàll dex gi mu yeewi mbooloo mi nag noonu mu ànd ak i taalibeem ci gaal gi daldi dem te yeneeni gaal ànd ak ñoom naka noona ngelaw lu mag daldi jóg duus yi sàng gaal gi ba mu bëgg a fees fekk yéesu tëdd di nelaw ci njegenaay taatu gaal gi taalibe yi daldi ko yee naan kilifa gi ndax sunu bakkan soxalula ci kaw loolu yeesu daldi jóg gëdd ngelaw li ne dex gi noppil te dal noonu ngelaw li daldi dal ba lépp ne nemm yeesu ne taalibe yi lu tax ngeen tiit ndax leen ñu daldi ragal lool naan ci seen biir kii moo di kan ba ngelaw li ak dex gi sax di ko déggal noonu ñu dal jàll dex ga ba ter ca diwaanu serasa bi yeesu génnee gaal gi nit ku rab jàpp jóge ca sëg ya daldi ñëw kar ko kooka nag ca sëg ya la dëkk te kenn mënu ko yeew du ak calala la sax ndaxte ay yoon yu bare jéngoon nañu ko te yeew ko ak ay calala waaye waa ji daldi dagg calala yi te damm jing yi ba kenn amul woon kàttanu téye ko guddi ak bëcëg mu nga woon ca sëg ya ak ca tund ya di yuuxu te jam yaramam ak ay xeer bi mu gisee yéesu fu sore nag mu daldi dawsi sukk fa kanamam di xaacu naan yow yeesu doomu yàlla aji kawe ji loo may fexeel ci turu yàlla bu ma mbugal ndaxte yéesu newoon na ko yow rabu bon wi génnal ci nit ki noonu yéesu laaj ko noo tudd mu tontu ko coggal laa tudd ndaxte ñu bari lanu muy ñaan yéesu lool ngir mu bañ leen a dàq ca réew ma fekk amoon na ca tund wa géttu mbaam xuux yu bare yuy for rab ya ñaan yeesu jox nu ndigal nu dugg ci mbaam xuux yi mu may leen ko noonu rab ya génn nit ka dugg mbaam xuux ya ñu bartalu daanu ca dex mbaam xuux ya nag matoon nañu ñaari junni noonu sàmm ya daw ca dëkk ba ak ca àll ya nettali ji mbir mi ba nit ñi ñëw seet li xew ñu ñëw nag ci yéesu gis ka rab jàppoon toog sol ay yéreem te ànd ak sagoom ñu daldi ragal ña fekk woon mbir ma nag nettali leen mbirum nit ka ak mbaam xuux ya ci kaw loolu ñu daldi ñaan yéesu mu sore seen réew bi yéesu di dugg ci gaal gi ki rab jàppoon ñaan yéesu ngir mu ànd ak moom waaye yeesu mayu ko ko mu ne ko ñibbil ca say mbokk nettali leen li la borom bi yërëme ba defal la lii lépp noonu waa ji dem ca diwaanu fukki dëkk yi daldi fa yégle la ko yéesu defal ba ñépp waaru noonu yéesu jàllaat dex ga taxaw ca tefes ga nit ñu bare dajaloo fa ko kenn ci njiitu jàng ba nag tudd yayrus ñëw ci moom naka la gis yéesu mu daanu ci tànkam di ko saraxu lu bare naan sama doom ji jigéen mi ngi bëgg a faatu kaay teg ko loxo ngir mu wér te dund noonu yeesu ànd ak moom bi muy dem mbooloo mu bare topp ko di ko tànc amoon na fa nag jigéen ju doon xëpp deret diirub fukki at ak ñaar sonnoon na lool ci loxoy fajkat yu bare sànk ci alalam jépp te jëlewu ci genn tan waaye faf wopp ja yokku noonu mu déggoon turu yéesu ne ci xelam su ma mënoon laal catu yéreem rekk dina wér mu jaxasoo ak mbooloo mi nag doxe ko gannaaw laal mbubbam ca saasa deret ji taxaw mu yëg ci yaramam ne jàngoroom deñ na yeesu yëg ci saasi ne doole génn na ci moom mu walbatiku nag ne mbooloo mi ana ku laal sama yére ay taalibeem tontu ko ne xanaa gisuloo mbooloo mi lay wër ngay laaj ku ma laal waaye yéesu di xool li ko wër ngir gis ku ko def noonu jigéen ja ñëw daanu ci tànkam wax ko dëgg gépp mu tiit bay lox ndaxte xam na li xewoon ci yaramam yéesu ne ko soxna si sa ngëm faj na la demal ci jàmm te na sa jàngoro wàcc bi yéesu di wax nag am na ku jóge ca kër njiit la mu ñëw naan sa doom faatu na matatul nuy sonal kilifa gi waaye yeesu jàppul wax jooju mu ne njiit la gëmal rek te bañ a tiit noonu yeesu dem ànd ak piyeer saak ak yowaana rekk ndaxte mayul keneen mu ànd ak moom naka lañu ñëw ci kër njiit li yéesu dégg coow li ñii di jooy ñii di yuuxu mu dugg ne leen lu ngeen di soow tey jooy janq bi deewul day nelaw rekk waaye ñu di ko ñaawal noonu yéesu génne ñépp woo bàyyi janq bi ak yaay ji ak ñi mu àndal dugg fa janq bi nekk mu jàpp loxoom ne ko talita mi liy tekki janq bi maa ngi la koy wax jógal ca saa sa janq bi daldi jóg di dox ndaxte amoon na fukki at ñaar ñépp daldi waaru ba ne jomm ci kaw loolu yéesu dénk leen bu wóor ñu bañ koo siiwal teg ca naan may leen janq bi mu lekk bi yéesu jóge foofa ñaari gumba topp ko di wax ca kaw naan yaram nu yow satu daawuda bi noonu yéesu dugg ca kër ga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 bésu noflaay bi nag mu jàngal leen ci seen jàngu ba mbooloom ñi ko dégg ñépp waaru naan lii fu mu ko jële te xam-xam bi mu yor lu mu doon ba muy def kéemaan yi ndax kiidu minise bi ndax du doomu maryaama te magu saak yusufa yuda ak simon te ay rakam yu jigéen ndax nekkuñu fii ak nun kon nag ñu daldi ko xeeb noonu yeesu ne leen des na faydaal yonent waaye du cim réewam ci mbokkam mba ci këram te yeesu mëna fa def yu kéemaan yu bare lu dul teg loxo yenn jarak wéral leen te mu waaru ndax seen ngëmadi bi loolu amee yeesu di wër dëkk ya di jàngale noonu mu woo ci moom fukki taalibe ya ak ñaar jox leen sañ-sañu dàq rab yi yónni leen ñu ànd ñaar ñaar mu digal leen ne déglu leen maa ngi leen di yónni mel ni ay xar ci biir ay bukki muus leen nag ni jaan te lewat niy petax waaye moytu leen nit ñi ndaxte dinañu leen jébbal àttekat yi te dóor leen ay yar ci seeni jàngu wante bu leen ragal ñu mën a rey yaram te mënuñoo rey ruu waaye ragal leen ki mën a sànk yaram ak ruu ca safara te it bu leen defe ne dama ñëw ngir indi jàmm ci àddina ñëwuma ngir indi jàmm waaye jaa si laa indaale te ñëw naa ngir féewale doom ak baay doom ju jigéen ak ndeyam jabar ak gorom te nooni nit ñooy waa këram ku ma gënalul sa ndey wala sa baay yeyowuloo ma ku ma gënalul sa doom ju góor wala ju jigéen yeyowuloo ma kuy rawale sa bakkan ñàkk ko te ku ñàkk sa bakkan ndax man jotaat ko amin naka noonu gis na nu tey ni borom bi yeesu feese woon ak doole yàlla ci ay waxam ak ciy jëfam ba taxoon mbooloom ñi ko dégg waaru naan lii fu mu ko jële te xam-xam bii mu yor lu mu doon ba muy def kéemaan yi téereb yàlla wax na nu fu yeesu jële kàttanam ak xam-xamam jëlewu ko fenn ndaxte moom ci boppam mooy kàttanuk yàlla ak xelum yàlla borom bi yeesu def na jëfi yàlla yépp ci kaw suuf ngir won nit ñi fu mu jóge ak ki mu doon amoon na sañ-sañ ci bépp mbindeef ak ci jépp doole ju mën a am ndaxte mooy ruwala ak kalmatullah maanaam mooy xelum yàlla ak kàddug yàlla looloo tax yeesu mën a wax genn kàddu rekk te dalal ngelaw li faj ku rab jàpp kàttanug yàlla gépp ngir dëkk ci yeesu looloo tax mu mën faj jigéen ju doon xëpp deret diirub fukki at ak ñaar jigéen jooju sànkoon na alalam jépp ci fajkat yu bari ak seeni garab waaye bi mu laalee yére yéesu rekk mu daldi wér te bi yéesu laalee bëti ñaari gumba yi ca saase seeni bët daldi ubbeeku te sañ-sañu yéesu yemul woon ci ñiy dund rekk waaye yoroon na it sañ-sañu ñi dee looloo taxoon mu mën a dekkal xale ba deewoon yeesu amoon na sañ-sañ bu raw sañ-sañu yonent kese ndaxte moom ci boppam mooy kàddu yàlla gi dundu yorum jëmmu nit kàttan gépp ak sañ-sañ bépp joxes na ko ko looloo tax képp ku nangu yéesu kirist ni sa musalkat ak sa borom waratoo ragal dara du dee du dund du rab yi du tey du ëllëg te soxlaatoo takki téere mbaa di tuur ay xamb ndaxte borom bi yeesu moo lay aar looloo tax mbind mi ne ci yeesu kirist maanaam ci yaramu nitam la matug yàlla gépp dëkk te mat ngeen ci moom mi buuru kilifa yépp ak boroom sañ yépp mbokk yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ci njàng mi di ñëw bu neexee yàlla dinanu jëm kanam ci linjiil ngir déglu ni yéesu jàngale woon mbooloo ma ciy lépp su fekkee ne bëgg nga am téere bu yaatal sa xam-xam ci linjiil bu sell bi na bind ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis. yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li kàddug yàlla wax ci almasi bi bi mu naan ci Yeesu Christ maanaam ci yaramu nitam la matuk yàlla gépp